wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi xam ngeen ne at bu jot kuréel gii du Touba ca kanam nga xam ne yitteem yépp mooy nemmeeku lépp loo xam ne nii warteef la ci dëkk bi ñu jéem a xar seen tànku tubéy ngir jëmmal ko ñu am bés bu mag bu ñu baaxoo di woote at mu jot ci weeru koor di bésu social ñu tànn bésu weeru koor gaaw bi njëkk ba ca topp di tombeek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai di ci woote nag ngir lan ngir fepp foo xam ne ni doomu aadama dafa nekk te yeyoo ndumbal ci kàttanu sunu borom Touba ca kanam jëm ca dugal loxoom. ñu njëkk woo mooy njabootu Seex Xadim gi ndax ñoom ñoo nekk social bi gën a nekk social bi gën a dëpp ñoom ñi leen woo kenn ku nekk nga ñëw jaay di Sëriñ Tuubaa def ci loo ñu dimbale koy deew ndax ñëpp dañoo gàddaay seen dëkk maam yi seen dëkk baay fekk sëñ Tuubaa kon nag ñun ñoo war yi da ngay gis ñoo xam ne wax dëgg yàlla euh, seen loxo jur seen ginnaaw bu ñu añee duñu reer te buñ kii te loolu dafa jomb jàmmante na ci Touba bi ñi nga xam ne ñoo nekk biti réew ñu ne Amérique Italie France Espagne Belgique jàppale yi social bi nga ko defal social nag yemuñ ci wéeru koor dong day di moom day weer yu gën a màgg gën a bari jafe-jafe moo tax ñu di ko ci dajale waaye social bi seet la war doon bi seet la war doon ci daara yi waaye social ci hôpitaux yi waaye social ci santé nit ñi waaye social ci euh, quartier périphérie yi waaye social ci village yi nga xam ne dañoo sori waaye social ci biir Sénégal gépp waaye social dana moon entier ngir jàppale ñëpp kenn bañ am tu waranke ndax suñu sëriñ loolu loolu loolu ñu mooy mooy jaamu yàlla liggéey tey dimbale te ko tane nga dimbale te yàlla tax loolu lañu suñu sëñ diggam Cheikh Khadim kon na ñëpp ñëw wuy sëñ Touba ci woote sociale boobu yi le 18 euh, mois de mai ci Touba nga xam ne ñoom borom alal borom te yàlla jox leen as tuut ngi leen ñaan ñu ñu ñu yokk seen loxo dañ ci ay benn benn personne mu ko mel ne sëñ Fallou Mbacké Mané gas Mané daaw ñu jàppale ci sociale bi baax a ñu ko soññaat baax a baax di sëñ suñu mbokk bopp sëñ Seck moom it ci sociale bi waaye ñu koy wax mbokk taalibe yi yëpp ñi nga xam ne yàlla Euh, manal na ngan ku leen euh, nga xam nga xam ko ci yow ñi nga ñaan nga a génn asaka ñëw lii social bi asaka mën na caa dugg ndax li war ci social bi ñu ñëpp ñu a dundal dañoo war a fexe ba Tuubaa kenn du fi ñàkkati buñ ko buñ ko fa sooree yàlla mën nañu ko defal waaw loolu kon maa ngi ci woote ñëpp tey ñaan ñu yusuñu ci ngir Sëñ Tuubaa ndax woo mën a sama jëm bopp woo mën a sama kàddu bopp kàddu Sëñ Tuubaa laa ne wooyee nañ ma wuyu ci ngir Sëñ Tuubaa yàqu mën aji boo daax yàlla wa am bi xëy na ngeen koy wuyu si woote yàlla bi nga noonu ah, bu ne wooye nga woo ka ngay wuyu si mooy des kon kon nañ woote nañ ngir Sëñ Tuubaa wuyu si ngir Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa da moom dara manqué wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mi ngi jëm ci bés bu màgg bu am solo boobu nga xam ne moom lañ fas yéene amal ci ñaareelu gaawu ci koor gi ñu jëm tolloog le 18 mai 2019 bés bi ni ko ñu baax ñi jiitu waxee léegi rek ñu ngi ko tudde bisu social bu Touba ci kanam euh, social nag euh, mooy rek dimbale ñi aajowoo ndimbal te yàlla rek tax dimbalante dimbale ñi aajowoo ndimbal te yàlla tax day lu mag a màgg ci yoonu yoonu lislaam waaye rawatina ci yoonu murit suñu borom tabaaraka wa taala wax na ne képp koo xam ne kii yaa ngi jël sa alal di ko def ci lu neex yàlla yaa ngi mel ni ku ji wenn fepp wenn fepp nga ji ko ba mu saxee am juróom-ñaari gub juróom-ñaari gub yu benn bu ci nekk am téeméeri fepp lu sakkane noonu lu sekkee noonu noonu la jël sa alal jox ko joxe ko ngir yàlla sakkane kon loolu woote la boo xam ne bi yàllaa ko njëkk woote moom moom ñëpp moom ñu bind bind alal ji moom ko moom ñu moom alal ji waaye sëñ Tuubaa da da ko woote lool te jëfe woon ko loolu itam kon nag ñoo ngi sàkku ci mbokki taalibe yëpp ñu def ci seen loxo seen kem kattan thème bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane ca bis ba mu nekk anwaawul infaq fi sabilillah wa asaaruhu fil mujtama maanaam dimbalante ci wàllu yàlla ngir yàlla ay xeet yi yi mu lamboo yëpp xam nga ay xeet la du rek asaka rek du addiya kese du maye kese waaye yu bare bëri la yooyu lañ bëgg waxtaan benn bu ci ne na mu amee solo ak na mu amee njariñ waaye tam yooyu yëpp bu ñu ko defee nañ ko war a defee impact bi mu am ci société bi njëriñ li ak jeexit yi nga xam ne dana ko am ci société bi ni muy amee solo loolu la ñu bëgg waxtaane ki ko war a waxtaan nag mooy ko ñu wax sëñ Fallou Bousso moom sëñ Assane Bousso moom sëñ Mbacke Bousso. di ci woo mbooleem ñi nga xam ne njabootu Serigne Touba lañ buñ ci jiitalee ci soxna yi soxna Bintu Mbacke moom Cheikh Habibou imam ak soxna Fadja ak soxna Bintu Sarr ak soxna Njaxat Mbacke moom Cheikh Abdoulaye Lahad rek dana yóbbaale soxna yëpp njabootu Serigne Touba gépp nun nag sunu woote dañ koy jëmale ci bokki commerçant yi nga xam ne. sunu borom da leen a taw fi xale ñuy dimbali leen la ñu yor ci seeni post Sëriñ Tuubaa def ko ca te kenn ku ci ne xam nga ne bu du woon Sëriñ Tuubaa tubay sax doo ko am kon nañu jaayanteeg siñ Tuubaa ci koor gi nga xam ne dañuy dimbali ay mbindeef yoo xam ne dañoo nekk ci fu sori ci Tuubaa te it yayoo lool ndogu te ku ne xam ne koor lu ci waay def lu ne des koy ful bis bii nga xam ne nag mooy ñetteelu édition bi nga xam ni ngi koy amal le 18 mai incha allah rabbi ca mbaarum Daaru Xudoos ginnaaw buy ndimbalante bi rek weesoo dafa bëri yeneen njëriñ joo xam ne da ko làmboo ci biiram ndax social buy def bis bi du jékki-jékki rek daje ca mbaar ma joxe ndimbal waaye lu jiitu bis bi dafay def délégation ànd ak membre Touba ci kanam yëpp euh, di wër tuubaa di seet fi nga xam ne fa lañ ko gën a yittewoo waaye lépp pour xamee ca barab ba lan la gën a aajowoo ndax di nga dem ci barab fekk amuñu ndox di nga dem ci barab fekk amuñu euh, courant di nga dem ci barab fekk fa ay manqué manqué yu bari nga amee fa ñaari mbir mooy di nga leen dimbale ci wàllu sociale waaye tamit di nga jàngale barab ba la fa ñàkk boo ñëwee def ay rapport indil ko Touba ca kanam moom it mu boole ko ci ay perspective am ça que lii nga xam ne moo seen yéene muy la développement de la ville sainte de Touba ñu mën ci am toujours ay yoon yuñ mën a jaar ba egg ca kon nag képp koo xam ne yaa ngi dégg suñ kàddu na ko bàyyee xel noonu te xam ne du mbirum dimbalante rek suñu biir waaye dimbalante gu ànd ak jéem a développer dëkk bi la lu waay mën lu waay am bu kenn xeeb bu kenn yëm di woote woote boo nga xam ni defaruk adduna ak defaruk àllaaxira moo ci nekk ndax kat bu nuy woote ci dëkkub Serigne Touba bi dimbalee di ko woote ci mbaarum daarul xuddoos bi kenn ku ne xam signification bi mu am ku ne xam itam ni kuy leb di Serigne Touba moo gën a mën a fay bor nga ñëw ci dëkku Serigne Touba bi di fi indi loolu fu ñu koy defee bu nekk muy le 18 di ko def ci weeru koor ngir bégal ay ñu wuy si woote Serigne Touba bi ci seen doole néew ñu di leen dimbali nga bégal leen di des ci koor gi ci weer woowu nekk weeru promotion loolu ci la ñu woo jullit yëpp waa diaspora bi nag ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu ngi leen ci woo waaye nag man sama woote bi maa ngi koy gën a def ci. daayira yi soxna jaara bu sëy maa ngi koy def ci soxna yi ñu taxaw tem ci social bi social bi nag saakub ceeb wala njëgam saakub suukar wala njëgam ak lu waay mën di def ci alal nga def ko ci ndax ndimbal kët ni ñu koy waxee mooy bu wàññiwul fa mu jógee du mën a jëriñ dara fa mu jëm te danoo bëgg a dundal ay nit li def ci koor gi danoo bëgg a jàppale ñu wuy si Serigne Touba ci seen loxo jotul seen ginnaaw kon ñu ngi sant waa Touba ci kanam di sant sëñ Abibu ak kilifa yii mu àndal ci ndimbal lii munu ndimbal waaye loolu nag la way juróom waxoon ne na sama yaakaar dëgër na ndax sama yéene ci jaam ñi tuutul ñaawul ci toolu toolub sëriñ Bamba bi wàcc ma yaafusuma kon murit bu nekk foofu nga war a taxaw doo wàcc doo yaafus nu wuy si leen ci woote bi dajale alal yi dajale ndimbal yi dajale dund bi indil ko Serigne Touba ci mbaarum Daaru Xuddoos mi ñu jox ko ñu wuy si Serigne Touba ci nuyoo yi maa ngi soññ waa Italie gépp nag ci turu sama jëwriñ ji incha allahu ndax man itali laa nekk te maa ngi ñëw nu àndaat ak yéen liggéey bi di soññ waa diaspora bi yëpp waa France ak ñëpp waaye nag man ci jigéen ñi laay gën a soññ ñu gën a góorgóorlu ndax gis naa seenu taxawaay ci Touba ci kanam. ku nekk xam na al infaq fi njariñam njëriñam dundalee sa alal ci yoonu yàlla njariñam kenn mënu koo takk doy na sëkk rek li sëñ Touba waxoon ci Masaalikul Jinaan benn tibb boo xam ni da nga koo jël jox ko sa mbokkum julit moo gën nga tabax junni jumaa te yonente bi sallallahu alayhi waxoon na ne ku defaral yàlla jumaa ju toll ne tàggum pitax mu defal la kër ci na kon nag loolu day wane ne jël sa alal di ko dundali ci yoon yàlla kenn xamul tiyaaja tiyaaba ja fam yam kon ñu ngi ciy woo suñu mboolu mbokk jullit yëpp di ci woo ñi nga xam ne ñooy suñuy sëriñ te nekk ci dëkk bi waaye di ci rawatina suñu mbokki taalibe yi dëkk bi nag ay cas ñoo fa dëkk kon nag ñu ngi ciy woo suñu mbokki taalibe yëpp sëriñ Tuubaa daana wax ne ku bëgg a àgg ci yàlla da ngay nangoo da ngay ñeme tuuma juru dëgg te nangoo feesal biir yi social nag ginnaaw bu liy weesoo day woy ndax ku nekk xam na ne ñu ngi faj ay ay ay woy ay way tawat ñi ngi dajale ay ay xéewal di ko yóbbu ci jumaay Sëriñ Tuubaa ji waaye ñu ngi dajale ay yére di ko yóbbul sancaan ñu ngi wut ay ay ay nag di ko yóbbul sancaan yi ñi ngi yóbbu ndox ci gox yëpp kon ñu ngi ciy woo suñu mbokki taalibe yëpp di wax ne bunt la boo xam ne nii mënees na cee amee ngërëmul yàlla waaye mënees na cee ci ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mënees na am ngërëmul Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy suñu yaakaar adduna ak àlaxira woote baa ngi noonu fii ñuy daanelee woote bi nag ki nga xam ne mooy Sëriñ bu moom jaayante na tonu ceeb ci bés boobu nga xam ne nii social moo koy def kon nag mbokk yi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai di gaaw bi njëkk ci weeru koor ba ca topp lay doon incha allah ca mbaarum daaru Xudóos kon nag jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kii nga xam ne nag mooy président commission sociale nee na mu ngi woo diaspora bi yëpp rawatina jigéen ñi nee na bàyyiwul kenn képp ku nekk ci diaspora bi Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Fattah mu Serigne Fallou mi jiite commission sociale nee na mu ngi lay woo kon Touba ca kanam ñu ngi ñaanal Serigne taxa mu yàgg fi ba yeggali naalam yëpp am ci ndam te ñu ànd ak moom.